salaamaaleykum mbokk internetu 7 actu ñu amati mbégte contentement di jàkkaarloog yéen ci seen biir chaîne bii di 7 actu comme niñ koy faral di defee saa su actualité amee dañuy doxantu sol suñu daal dem ci ñi nga xamante ni am nañu yaakaar ni war nañ ci mën a àddu tey nag ñu ngi fii ci site gàddaay seet si Serigne Moustapha Fall borom xalima gi sëñ Moustapha Fall ñu ngi lay nuyu te di la bàyyi nga nuyook mbokk internetu 7 actu salaamaaleykum mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziaraat bu baax tey di leen nuyu di leen jox seen waay eh, di ziar eh, waa 7actu ñi nga xam ne eh, macha allah ñi ngi topp seen bi nga xam ne seen bu am solo la di jàngale lu bari ñoo ngi leen di nuyuwaat tey di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax Moustapha Fall la nag borom xalima gi dëkk fii ci gàddaay moo leen di ziar bu baax a baax. Mhm, mi ngi noonu Serigne Moustapha Fall borom xalima gi euh, tey ñu ñëwoon fii ci site gàddaay euh, seet si la bëggoon am ak yow euh, waxtaan boo xamante ni am nañ yaakaar ni képp ku ko seetaan dina am lum ci jàngat dañuy topp actualité comme fi ñu toll ni ñu gis ni am na benn soxna soo xam ni ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko àjjana ñu gis ñàkkul mu am benn tiis boo xamante ni dal na ci kawam yàggul dara ci fan yi ñu weesu tey yéen ñi nga xam ni yàlla may na leen ngeen di yëngatu ci wàllu maam Euh, yow boo ñu ci doon jox am ñàngat. ñoo ngi ñaanal soxna soosu yàlla xaare ko àjjana tey euh, di jaale ay mbokkam bu baax a baax a baax mu mel ne wax dëgg yàlla loolu daw na yaramu ñëpp ndax ku ko seetaan rek sa xol bépp day jeex ndax ñun jigéen mooy sunu yaay lu ñu am rek jigéen la te nu ñu mel tamit jigéen la waaye jigéen nag ñu ci baree bari léegi dañoo toppatul li nga xam ne si ne mooy seen maam yi li nga xam moom lañ daan topp ndax jigéen. dafa am foo xam ne si ne bu fa tollee dafa war di làqatu loolu nañ ci bàyyi xel jigéen moomul boppam da nga gis jigéen ñi léegi buñ tollee diggante dañuy feeñ lool ci internet bi di wanee ne dañoo tollu diggante te xamuñu ne cat mën na leen a gàllankoor lu bon lu nekk mën na leen a gàllankoor ba ci sax ñi nga xam ne si ne ñoom la ñu woowee nitu guddi wala yeneen yi nga xam ne si ne maanaam ñooy ñooy yàq dañ leen di topp ndax jigéen bu tollee foofu lu bari daf koy soxla waaye nag xam nga jigéen ñi léegi dañoo topp li nga xam ne si mooy àdduna ñu ci ëpp nag ba xam ba xàmmewuñ sax léegi fa nu jóge wala boo ko xamuñu fa nu jóge loolu nag daf leen indil ay gàllankoor ci lu baree baree baree bari mu mel ne xëy na lii ndogalu yàlla la waaye nag ci jigéen ñi xoolaat seen bopp bu baax niñ ciy xoole seen bopp nag mooy képp koo xam ne si ne da nga tollu diggante ngay nëbb sa bopp bañ na ko ba mag ñi guddi ngeen daan lañ daan génn di doxantu buñ tollee eh, maanaam buñ tollee diggante dangay gis ne dañuy bàyyi ba timis jot wala ba timis maase ba mu guddi ñu génn doxantu daal di mën a duggaat ci seen biir kër mu mel ne léegi loolu amatul loolu nag sëñ bi moo tax lu baree bari léegi macha allah di indil jigéen ñi ay gàllankoor waaw loolu nag comme niñ koy waxee rek am na ci yoo xam ne eh, nañ koy bàyyi xel di ko def yi ma ciy joxe nag yu am solo la loo xam dama bëgg nit ñi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax yu am solo dafa jigéen bu tollee diggante dafa war di sàkku ñaan ndax lu bari daf koy soxla mag ñi dañ daan def jigéen bu tollee diggante na nga dem ci paftan goo xam ne maanaam dafa aw xob daf caa dee ba waddal boppam nga jël xob woowu nga lem ko def ko téere boo ko defee téere nga daat koy takk ci sa ndigg incha allahu danga nga mucc si jàmm boo ko mënta takk sa ndigg nga def ko téereb jàllawle jàllawle mag ñi moom la naa def téere boo xam day wër sa baat bi daal di ñëw sa loxo góos bi jàllawle boobu boo ko takkee da nga mucc si jàmm bi ci des tamit mooy boo tollatee diggante na ngay bind lu falaxe ak naas yi falaxe ak naas yi na nga ko takk ci sa oomu ndeyjoor ci sa oomu ndeyjoor boo ko fa takkee incha allahu boo muccee nga jël ko nga takkal ko liir bi bu dee góor la nanga ko takkal ci loxo càmm ndeyjooram bu dee jigéen la loxo càmmooñam bu dee góor da nga ko koy takkal fii fi muy takk montur nga ko koy takkal ci loxo ndeyjooram bu dee jigéen la ci loxo càmmooñam dana la aar te dana aar liir bi bari na ci yoo xam ne nag maanaam jigéen ñi dañ koo xaw a soofantal te lu baree bari moo leen indil ay ay jafe-jafe euh, jëwrin dañuy rek dugg ci li nga xamante ni euh, ci loolu ngay yëngatu euh, ndax gis nañu ay ay garab yoo xamante ni teg nga ko fii macha allah dinañ ko wane image dina daw léegi léegi léegi mu di loo xamante ni yaa ngi ciy yëngu tey boo ñu doon wax tuuti ci li nga xam ni yaa ngi ciy yëngu fan ngay tàmbalee. waaw bëri na ci yu may yëngu muy ñaanal nit ñi si seeni gàllankoor rawatina ñi nga xam ne si ne dañ ay liggéey wala ay jafe-jafe wala wàllu rab wala ci yoo xam ne si ne eh, daf lay aar dinaa leen jox benn kaaraange bu am solo la kaaraange bi da ngay bind dangay wut benn xobu paftan nga bind ci aayatul kursi yu nga wutaat beneen ba muy juróom juróomi xobi paftan moom ngay wut benn bu nekk nga bind ci aayatul kursi yu juróomi xobi paftan yi yëkkatil sa Euh, sa lal maanaam côté bu nekk nga yëkkati nga teg fa benn xobu paftan jël benn xobu paftan teg ci digg lal bi maanaam da nga yëkkati matelas bi fenn fu nekk ci koñe lal bi nga teg fa benn xobu paftan yëkkati ci digg lal bi nga teg fa benn xobu paftan boo xam dañ ciy bind ayatul kursi yu képp ku ko def sa néeg rab du fa dugg seytaane du fa dugg jinne du fa dugg incha allahu te luy yàq du fa dugg te doo tëdd ci néeg ba mukk di tiit loolu bëgg naa ñëpp kenn ku nekk jariñu ci ndax dafa nekk loo xam lu am solo rawatina ñi nga xam dañoo am njaboot loolu yomb la bi ci des mooy dañuy yëngu ci garabu hémorroïde ak ndoxum siti garabu hémorroïde ak ndoxum siti am nañ ci euh, maanaam nii lañ ko liggéeyee nii lañ ko liggéeyee muy loo xam ne lu am solo la liggéey bii ñu ko liggéey nag dañ koo liggéey ci sunguf maanaam meññat mu ñuy jëfandikoo traitement bi ñaari bitéel yi la traitement bi nag ni nga ko gis nii dafa yomb lool waaye dafa efficace lool rawatina góor gi nga xam dafa xaw néew kàttan góor gi néew kàttan bu ko jëfandikoo yaakaar naa ne incha allahu day maanaam lii dana maanaam euh, bu dee traitement la day day bu dee traitement la maanaam cinq jours wala six jours wala bala moo am juróom-ñaari fan da nga gis mu commencé toll fi mu tolloon ci wàllu ngóora nga xam ne si ne dafa nekk lu am solo traitement bi nag hémorroïde bi nga xam ne moo nëbb ak mooy hémorroïde bi nga xam ne moo feeñ hémorroïde bi nëbb nag. lii boo ko dee jël da koy da koy maanaam euh, daf koy dindi ba mu jeex tàkk ci sa biir bu dee hémorroïde bi nga xam ne si nit moo feeñ mooy ñuy wax euh, hémorroïde bi nga xam ne moo feeñ nga xam doo mën a toog toogaay bu yàgg incha allah boo ko dee jëfandikoo hémorroïde boobu day dem ba seey dootoo ko gis fenn ndax am nañ si ñu bari ñoo xam ne si ne yaakaar naa ne ñu ngi wër garab gi waaye mënuñu ko gis kon euh, loolu moo doon li nga xam ne mooy garabu ndoxum cité ak hémorroïde képp koo xam bëgg na ci nag sunu numéro 70 la 698 86 48 mooy sunu numéro bi ci des tamit mooy jaaro yi nga xam ne dañ koy liggéey ci kaaraange jaaro yi yaakaar naa ni nit ñi dañu koo xamee lool jaaro yi nga xam dañ koy liggéey ci kaaraange muy jaaro yu am solo jaaro yoo xam ne yaakaar naa ne liggéey nañ ci lu bari jamono ji ñu toll ndax lii lépp ay jaaro la yaakaar naa muy jaaro yoo xam ne dañ koo liggéey liggéey bu am solo lii nag kaaraange la ak cat jigéen ñi nañuy wut kaaraange jigéen ñi nañuy wut kaaraange ak cat maanaam kaaraange jaaro bi dañ ciy liggéey kaaraange ak wàllu cat ñaari fànn yëpp dañ ko ciy liggéey mu nekk lu am solo jaaro bi boo ko takkee da nga aaru ci cat da nga aara da nga aaru ci wàllu kaaraange muy rab ak jinne ak yeneen ak yeneen yoo xam ne daf lay daf lay gaar maanaam dañ ciy liggéey bayre tamit dañ ciy liggéey wàllu ubbeeku mu nekk am solo macha allah kon ñoo ngi santaat mbokki taalibe yëpp te di leen jaajëfal te di leen wax rek ne nañ gën a góorluwaat bu baax rawatina soxna yi nañu aar seen bopp ci lu bari dañoo bëgg ñu aar seen bopp xëy na beneen yoon dana leen indil ay yeneen kaaraange yoo xam ne ak yeneen yoo xam ne si ne boo ko dee jëfandikoo ku la liggéey faatu am na ci loo xam ne boo ko dee jëfandikoo ku la liggéey faatu bi ci des tamit mooy boo bañee ku la sànni kort wala ku la sànni korte du du la jàpp lii rek boo ko defee ku la sànni korte du la jàpp mukk mooy da ngay wut benn gura bu xonq du gura bi moom ngay jël ak ñetti doomu gerte nga boole gura bi ak ñetti doomi gerte yi nga boole ko nga yëyandoo ko incha allahu képp koo xam ne si ne def na loolu ku la sànni korte du egsi ci yow képp koo xam ne si ne yëy nga ñetti doomi gerte ak dammiitu doomu gura bu xonq nga boole ko yëyandoo ko barke sëñ Tuubaa kenn mënu laa korte ba jàpp la mooy korte nag mooy ngelaw yu bon yooyu ñuy sànni muy neew wi ak ñu la koy sànni say tànk di saddak di def ay affaire loolu mooy korte képp koo xam ne si ne jëfandikoo na loolu macha allah képp ku la sànni korte du egsi ci yow sëñ Moustapha ñuy kontaan bu baax ci waxtaan bi waaye tey ci tënk laataa ñuy tëj li nga xam ni moo di émission bi boo doon jox soxna yi nga xam ni ñu ngi ñuy seetaan à travers cette actu secret boo xamante ni ku ci wan lor boo ko defee amaana bu ci yàlla àndee di nga mucc lan lay doon. waa secret bi nga xam ne boo ko defee incha allahu di mucc bëri na secret yoo xam boo ko defee da mucc waaye am na ci loo xam ne dañ la koy bindal saaru talsam la dañ la koy bindal nga xool ko. incha allah boo ko boo jàkkaarloog moom rek da nga mucc loo xam ne si ne moom macha allah bëri na tamit loo xam mag ñi dañ ko daan def muy secret yoo xam ne dañ la ko daan defal ba ci sax dàllu mbaraakiis yi sax mag ñi dañ ko daan jël def ci ndox daal la koy jox nga naan ko loolu da da lay musal ci lu gaaw bëri na ay secret yoo xam ne si ne dañ la koy defal ba bi ci des tamit mooy nañu fexe fonk aayatul kursi yu ki nga xam ne si ne dafa tollu diggante gis nga aayatul kursi yu day muccal nit bis boo tollee diggante ba war a mucc bind ko juróom-ñaari yoon nga naan ko boo ko mënti bind juróom-ñaari bind ko ñetti yoon nga naan ko danga mucc ci jàmm te aayatu kursi yu yaakaar naa foo dem imaam boo dem wala koo dem koo xam ne si ne jàng na boo na ko bindal ma ñetti aayatul kursi yu mu bindal la ko boo la ko bindalee nga naan ko inchaa allahu di nga di di nga mucc basmala muy bisimillahi rahmaani rahim 111 ku ko bind maanaam tollu diggante bind ko naan ko da nga mucc 66 yi ku ko bind naan ko da nga mucc gis nga 66 basmala sax jigéen ju munta am doom sax daf koy boo ko dee naan bu yàggee da ngay am doom boo ko dee boo ko bokk ak sa borom kër di ko naan bu yàggee sax sunu borom da leen di may doom ki nga xam ne si ne dafa fu ne dugg na fa munul am doom na wut xale bu koy bindal 66 basmala rek 66 basmala muy bisimi laahi rahmaani rahiimi kese mu bind ko 66 rek di ko bokk ak borom këram di ko naan incha allah dina am doom boo boo tollee diggante weer wi nga nekk na ko bind 66 wala 111 incha allah nga di ko naan da nga mucc ci jàmm te nga fexe nga bind ayatul kursi yu nga di ko naan te nga bind ko ñu takk di ko takk incha allah loolu képp ku ko def ku ko def da nga mucc incha allah waaw ñoo ngi leen di tuubalaat bu baax jërë ngeen jëf. tey euh, sëñ Moustapha Fall borom xalima gi ku ko bëggoon euh, seet si nu muy def. waaw ñun nag ay donga lañ li ñuy wax rek ne dañoo nekk ci njàngum xasida ndax ñu ngi ci kuréelu xasida yi waaye dañoo nekk nag di dimbale suñ mbokki taalibe yi ñoo ngi fii gàddaay géejaway cité gàddaay géejaway cité gàddaay fi lañ yor daara fi lañ nekk tamit di liggéeyal Serigne Touba waaye fi lañ nekk tamit di dimbale mbokki taalibe yi nga xam ne si dañ fee nekk te wax dëgg yàlla fu baree bari dañ fay dem duñ gis résultat ñuy ñëw si ñun ñu leen di dimbale sunu kemtulaay kàttan képp koo xam ne si ne nag euh, bëgg nañoo gis ñoo ngi fii wala boog boo ñu woowee ci sunu numéro boobu diggante tuubaa ak Daarul Moxti diggante boobu la ñuy baagante boo ñu bu nekkul côté boobu rek ñu ngi fii dakaar euh, Dakar Guédiawaye Cité Gàddaay ñoo ngi leen di tuubalaat bu baax jërë ngeen jëf